tey ñu ngi fii ci géejawaay marché bu bees gi nga xam ne mooy capitalu chauffeuru car rapide yi ak njaga njaay yi ñu tàllal leen seen micro suñu micro ñu bëgg leen laaj li nga xam ne moo xew démb ci réew mi àddina bi yëpp di ci wax mooy apprenti bi nga xam ne dafa ñëw ba ci digg tali bi di ci sanguwaay mu nekk acte boo xam ne ñëpp ñu ngi koy ñaawlu ñu tàllal leen suñu micro pour laaj leen seen réaction ban gis-gis lañ ci am. kon dégg loolu teg ko fenn. affaire daf la xamoo dañuy jaax deru apprenti yi apprenti liggéey la boo xam ne da nga siy jaar di ñaan yàlla dem si kanam doon chauffeur doon transporteur soo si nekkee waroo doon dof da ngaa war a am foo jëmale sa bopp xamoo xam ne lii du métier am dof ay nit ñi ngi si jaar dem ba doon transporteur yor seeni oto gérer loolu ak loolu apprenti yi dañoo war a changer seen comportement bañ ku leen yàpp léegi loo wax apprenti moo ko def te fekk ñun ñoo koy def lii métier la xamoo booy jaar mi ngi mel ni daara jooy jaar rek di jàng comme école bi da ngay ñëw jàng sixième ñaan nga yàlla doon dem lycée ñaan nga yàlla dem université ñaan nga yàlla dem ba doon ministre wala président wala médecin noon nga war a def mais apprenti yi dañoo war a changer suñu comportement xamoo jéem a am taalibe yar ak teggin jàng suñu métier lijjanti suñuy pees jéem a dawali jéem a doon transporteur loolu mooy fulla mais apprenti yëpp ak chauffeur yi kay dañoo yablu sen bop mais bu jëkkan mo naxna chauffeur dafa waran am fulla ak fayda bo xam nit client bi nga yab sax dafa la wara jox cër tab métier la comme yeneen métier yi da ngay liggéey out lo yobu sa kër di ñaan yalla am si kër am si jabar am si teranga bo ci nekké da nga wara am fulla am fayda xam fu nga wo wara jëmele sa bop loolu moy objectif bi yàlla rafetlu wuñ ko quoi et puis nekk na lu ñaaw quoi wa deug yalla mais nag ñëpp bokkuñ ko quoi dafa am ñoo xam ne liggéey boo gis bu nekk dafay am ñoo xam ne dañuy liggéey sa normal am ñoo xam ne del salteel quoi mais kooku moom man dama jàpp ne moom vraiment ñu ngi koy ñaaru daal ñu ngi koy ñaaru ñaaru trop vraiment mais nag du ñëpp daal parce que ñun ñoom dóor waar rek lañ xam liggéey rek lañ xam wax dëgg yàlla kooku nag moom li mu def moom meet nañu ñun ñëpp parce que mu yàq suñ suñu ko quoi te yàlla xam na ko ñun ay dóorkati waar lañ et mooy loolu met nañ trop vraiment met na trop mais nag ñu koy wax daal moom mu xoolaat bu baax daal am na yoo xam daal naajul quoi naajul et tout naajul fa dëgg yàlla met nañ trop nag vraiment met nañu. a ah, chauffeur Seck apprenti daal mooy talib moom ñun ñëpp ñoo ko bokk quoi kon dafa war a naaj quoi dafa war a rafet quoi am na loo xam daal rafetul daal rafetul ah sama kàddu gu mujj moom mooy que ne ah, ñu ngi koy ñu daal ñu ngi koy ñaawlu trop ñu ngi def ñu ngi koy ñaawlu trop vraiment ñu ngi koy ñaawlu quoi. loolu moom rafetlu loolu kenn rafetlu ko télé bi moom du pour saw nit ku ne da nga war a respecté sa réew te fii rek la ñu am li nekk bu yàqoo nun rek la yàqul ñun ñoo war a ànd defar mu set alors daal bëgg nañ ko moom ci emprunté yi jooju tey Sénégal yëpp ah. ko mais métier moo dem di nga gis ñu ci yàq waaye ñun duñ salteel dara fi ñuy taxaw nii dañ fiy droité ba mu jekk liggéey rek moo ñu bàyyi mais du caag nag dañuy yàq dara. kàddu gi mujj tey ah, di leen dénk yar rek ñu respecté code de la route bi respecté métier mi te xam ne métier mi benn métier gënu ko buñ ko respecté lu ne mën nañ ko ci nañ ko gëm rek te dëggu. man Malick laa loolu moom jaaduwut ah li ma ciy wax kay mooy képp ku ko defit man rafetlu wu ma ko man jaaduwut parce que boo bëggee tuur ndox war ngaa mën a nga dem foo xam ne dañ fay tuur ndox wala nga dugg si kër ñaan buñ la mënee may may la nga tuur ndox loolu daal laa ci am lu may wax ah ëllëg bu mu ko def bu fekkee dafa juumit boo lëggee bu mu na ko bàyyi xel rek bu mu ko def ndax ñaaw li ma laaj tamit ndax euh, am na loo xamante ne nii buñ ko xul kenn tamit ku ne war na koo xam ndax doomu aadama sax bu dul dara rek boo tuuree ndox war ngaa wisu sàkkatuma nga jël sa bopp def sa bopp comme comme mala xam nga Sénégal ñëpp ko bokk tax na nga fu la neex nga taxaw saw te ñun chauffeur yi ay noble la ñu barke yonent bi ndax gamuñu lu dul liggéey ku bàyyi say parant dëkk ba ñëw Sénégal Ndakaaru Njaay di liggéey am na loo xam ne waruñu cee xool ba ni yàq suñu der teguñu ko fenn man bu ma sañoon loolu day am ay daan ci Sénégal ndax mbedd mi du mbedd buur la rek taxul lu waay neex def xam nga ndax mbedd mi ci la ñuy amee lu am sunu teraanga ci mbedd mi la nekk ci kaw tëli bi xam nga mais amaan amaana Sénégal moo yaatu ba lu waay neex def yaakaar na kenn lijjantiwu la mais bu amoon ay sanctionnement tamit amaana dinañu dinañu arrangé et puis tamit ay douche publique war na am tamit ci dëkk bi ndax da nga gis chauffeur boo xam ne day bëgg a tur ndox ñëw ba ci arrêt droite mais faaw mu dugg ci kër ñaan ndox ñaan tur ndox te kër tamit da dugg ci kër ñaan tur ndox ñooy duñ la wóolu sax dañ yaakaar ne sàcc nga wala dara waaw kon Sénégal war na am ay douche publique yu yaatu yoo xamante ni ku bëgg a tur ndox tamit man caa dem waaw loolu daal moom waaw leen di digal daal waaw ñi ngi may dégg nag maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp chauffeur yi amande en tant que Aliou Gueye chauffeur super maa ngi leen di xelal di leen digal bu ma sañoon daal ku nekk chauffeur bu nekk nga xam yow yaay kan te xam ne chauffeur moom euh, responsabilité la daal war ñoo xool ba ñuy dëkkal foo xam ne dëkkuñu fa tax na Sénégal léegi lu waay def ñu ne chauffeur lu waay def ñu ne apprenti te apprenti liggéeykat la apprenti liggéey la xam nga employé la comme yeneen employé kon waroon noo xam ñu ñooy yan tan tamit ma leen di dénk tamit ngeen gën a góorgóorlu gën a fonkaat li ngeen doon te xam ne ay noble ngeen daal yéen chauffeur yi waaw jërë ngeen jëf